arbitre sifflé na Alioune Diop lan la ne Alioune Diop Ndiakhou Ndiakhoum Alioune Diop door na léegi Alioune Diop Ndiakhoum Ndiakhoum Alioune Diop indi ko moom Alioune Aliou Diop fay na léegi Ndiakhoum dooran na ko waaw oh, daf koy touché ah oui gauche bi nee na. Lansar écurie Cheikh Mbaba ah oui ah, ah, door na ah oui gauche droite. Ndiakhoum dafa gis coup bi ah, na ko jël na ko bañ na ñool moom Aliou Diop Ndiakhoum Aliou Diop jàppante nañu. di ñaari xale yaa ngi bëre seen combat mënta mënta yomb arbitre il faut ma atte pour ñu ñu ngi leewtoo ñoom ñaar daw na ko jël daw na ko jël doon na hypercule moom Ndiakhoum mu ngi koy caaf mu ngi koy caaf daan na ko Ndiakhoum daan na Alioune Seye lan ngay wax ci euh, jël jël trophée waaw jël bi forte pour ni ma jël dawaa ba NKP yi doo xam ne ñoom ñun benn lañu rek kenn tànnewul kenn ñun ñëpp yàlla nu bin ñun ñëpp di leen masawu ñoom ñëpp di leen béggee di feer naa ko trop quoi parce que lii dafa neex barke sëñ Fallou. lan tax nga naan entraîné wu. li tax ma gën a rayante ñii ñu tuddee bi barke alxuraanu karim parce que dama ci am ay xarit mooy àndal. billaay wallaahi. loolu tax ma gën a reyante. billaay. Euh, lan moo tax mu yàgg boo gisee ni def nii muy jéem a yàq boo gisee nga xam ne entraîné wut. ko entraîné ko yàq. man bëri naa ba ma pare te jeexuma mënuma jeex. parce que damaa liggéey. mu fi nekk nag na ay affaire yu paak yooyu dafa xamul rek. barka alxuraan moom mag foofu. moom nag ñu ma war a bëreel ñoo may daw woo tax may bëri ak ay Aliou Diop bi na ma gaa yi Siteu dañoo lu la waaw dafa daanu daanooti dañoo lu bëri Siteu dañoo lu bëre combat la mag kuule ci ko. waaye commencé ak ñoom ñëpp Siteu la soxla sax.